numéro 1 au Sénégal. Zik FM. Zik FM benn Sénégal! di gën a fës Sénégal! xibaar yi Sénégal! jafé ciment ci Sénégal la ci tënkook li ko sabab faram Sénégal! gi ci bi xibaar yi. Sénégal! ñu Sénégal! toftal Sénégal! coupe ministre lu jëm ci ci Omar de amon na di ngeen dégg kàddoom ci reportage Pierre Claver Puy xibar bitim rew Mame Mbaye tagatiram tàggat Soxna Fall yene kay mont la ci bundoo yi soxna Fane njàmbur njàmbur mo len defal xibar espoir non nga ko bëggee. Etienne ñu doore xibaar yi ak itam li nga xam ne mooy conséquences yi bàyyeekoo ci usine ciment yi nekk fii ci Sénégal. ni ñu commencé bu dakkul ciment faw mu gën a yokku spécialistes yi tiit nañu sax waxuma la yokk waaye rupture stock boo sàgganee mu am ndax situation yi mu ngi gën di metti ñuy mool gisatuñu ku leen mooloo ñiy tabax gisatuñu ku leen tabaxloo mu commencé nekk situation bu gën a metti nag ci Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane Diallo reportage